waa soo gaay very cool way But mbay mbay dama la ko toog mbay mbay sonal nga ñëpp mbay sonal nga ñëpp mbay dama may teeñ njera ama damay tey ji njeera tey ji njeera gingembre bi na mais eh, duma yàgg de fat fat la fat fat dama dama yeewu sànq vite fait xam nga fekk seen yambar bi aram aram mën na duul ba pare aram yambaree na du ko aram neeru wéy moom se gars yi bon comme que gars yi ñu gamugi xaar si gàmmu não son gàmmu gi mun naa gamugi mas gamugi wax si waxu gàmmu gi man gàmmu gi sama nekkatu si gàmmu gi nii sama nekkatu si wéy comme que ñu dañoo am xaalis bon ñu fay réalisateur bi ngaa ko fay mu defal ñu realização après gis nañ ngaa ko liggéey ak benn réalisateur ni ñu continuer waat fay bon de déjà jaare yaay Dèjà su ma nee Dèjà da naan hmm, su ma nee Dèjà da nga man ah man Adam duul yi muy duul si réew mi Adam laaj naa la kii Cameroun indi ma ay plaque te moom. xam naa ko moom Cameroun bi soo defa floo naa wax tur bi de waaw te su ma nee la kooku yéen ñaar yéen a bokk papa wax ngaa xam kan laay wax sa doom baay la bëgguma tas ay kër nag mais sa doom baay sant ko nga gërëm ko waaw su ma nee la sant ko gërëm ko sax tur baa ngi ci biir sant ko nga gërëm ko boroom Cameroun bi waaw sa onda bu rouge bi tamit xoos-xoos si nekk bëri na de doo ko peinturaat onda bi ah ngeen def ne léegi gars yi <coughs> loolu benn parenthèse la woon rek. Euh, génne nañ effet de l'air man à ma grande surprise maa ngi naan si boy sama gars ñi xam nga dañuy dem dañuy dem États-Unis lañ jëm wala tem-tem ñu jëm kii biir Panam hii li ma kasoon denc assur naa génne ndekete gars yi Gambie lañ doon dem Gambie <laughs> effet de l'air bi Gambie lañ doon dem Gambie ah dem ba aéroport nag yóbbaale réalisateur bi di dugg ak Gambie yéen war ngeen du sax yox Sénégalais yi effet de l'air nit ñëpp di xaar foofu leen jëm dégate Gambie ngeen jëm Gambie ah daba nag sol nag ak casquette bi nag sol xoolal tubéy bu orange bi nag pour fës t-shirt bu orange bi daba daba loolu du solu aéroport aram tamit yow Gambie bii nga jëm di sol ay pull ay ngandum pull mel ni ku jëm fu Gambie nga jëm saay slow down slow down Gambie Gambie nga jëm di sol effet de l'air ngeen wax Gambie merci belle merci beaucoup merci. merci belle. yaa ngi dégg ndagare Gambie lañ jëm Gambie lu si jar ay sol ay pull <laughs> ba pare nag tey nag laa xam parce que parce que gars yi nañ seen vol léegi léegi oh. raté nañ vol bi. donc biir aéroport parce que xam nga fii moom Sénégal la raté nañ vol aéroport mais Gambie la billet bi seerul soixante quinze mille la mën nañ ko mën a jëndaat nag wax dëgg yàlla ngeen dem waaw bu nekkoon beneen dëgg day metti mais billet bi da ngeen xaar vol bi si ngeen jëndaat bi d' avion soixante quinze mille loolu bëriwul ngeen dem comprendre nga ngi xaar nag kii bi maa ngi xaar effet de l'air bi bu effet de l'air bi génnee wax naa la nga génne ma samay valise ok boo si kanam tuuti maa xool ba xam damay dem tey si naar bi Paris wala suba incha allah rabi bu fekkee egg nañ Gambie laa ba installé le lendemain naa takk sama bagage dem dem Paris ah wala ma dem Italie mun naa dem Suisse Belgique tu vois wala Nice ça dépend si envie bi may am rek quoi yaa ngi dégg donc on est bon yi duma ci yàggaa ah. donc ci kanam tuuti ñu suivre. suite logique bi xol buñu ñu eggee Gambie peut-être voilà fan la ñuy tourner Sénégambia wala Séné Sénégambia wala xaw fan lañuy tourner ci kanam tuuti ah. da ngeen bay insister bo leen doulé suma ma leen waxee duul leen ngeen ranger seen bagage yi. aja si kanam donc bo leen demee eggee Gambie ngeen def mi signe wala ngeen poster ben affaire ah. sinon peut-être tay ci ngoon wala suba suba may xol ni soit Air France wala Air Sénégal. ban moo gën a disponible pour tey tonight wala demee après ñu dugg ñu dugg Pana mënoon ngeen dem Dubaay nag sama gars yi quoi moo gënoon jekk si affaire bi tu vois. ma ne leen ngeen am xaalis Cameroun yi ngeen duul ma ne ok coow jiwul méttiwul xam ñaata at ngeen am ngeen yéen a ma mag ma ni ba tey coow jiwul loolu méttiwul. effet de l'air Sénégal yëpp di xaar foo leen jëm ngeen bëgg a dem Gambie sama gars si kanam waaye. maa ngi naan tee bi su ma paree en attendant ñoom ñuy génn ñu déggoo ay eh, ciao mbay dama nga toog <laughs>